l'observateur xëy assemblée nationale ak yeesal yi ñeel sartam réew mi jëm ci ndindim poste premier ministre yéene kaay buggul futur média ne loi na ci commission bi mu des nag yaatal gi ñeel wote gi ba ci péncum réew mi yépp yamuñ ca dañu laalaale article 63 bu sartam réew mi moo waral yéene kaay bi di observateur ne léegi président Sall mooy kenn kott ki am kilifteef sañ-sañu woolu ci lu jàmp dip session extraordinaire assemblée nationale waral observateur ne ma nga ca maquillage ga waa idi 2019 ñoom laata gëfi woon la ñu wax ak addu kalpe gi ñu gis ne moom la ca président Macky Sall def ci direct info ñu ne lu ëpp juróom-benn di téeméeri bureau de vote yu kenn mënul jëmmal yoo xamante yu fictif la amoon na ci bitim réew ci région yi nag ci Sénégal ñu ne lim ba woteel coalition président ci wote yi député 2017 ak lim bi ko woteel ci présidentielle gi am nag wuuteeg téeméer ak fukk ak ak ñaari téeméer ak fanweer ak ñaari xob fichier bi nag ñu ne téeméer ak juróom fukk ak juróomi junni ñu fa dëkk ci les échos Idrissa Seck ak i àndandoom ne noor bi di bët gànnaaru réew mi nag moo xadd kaaba gi ci wàllu transfert aji wote yi certificat de résidence it wax nañ ca ak it nii maire yi Bokk Yaakaar yi ñu ne doon ko séddalee seen aji wote ne ay laxasi caaf ba tey ci les échos tontub cadre yu APR la ñuy ñaaw lu ñu ne mooy leader opposition bi àndatul ak seen sago yi àndul akub sérieux soxna Aminata Touré ci direct foo moom di wax ak Idrissa Seck mu ne mu ngi koy ñaan mu fàtte démb nag ci jublu ci taxawaay guy defar guy dëgëral suñu démocratie président Sall démb ci tëg premier mai gi doon dalal syndicat yi ak seen i tawat vox populi ne tontu yu gàtt ca leer la leen jox ci wàllu càkkutee fag yokkuteem payoor yi bu nu ko sax xalaat mu ne jamono yi émergence la nu wax ca nag kuy liggéeyal émergence danga cee boolee responsabilité yi maanaam di wax loo mën ca nag am na fu nu mën te weesu laas ne Macky Sall ak i dëggam yu métti yu mu yeggee syndicat yi démb amuñ mu ne moyen yokk payoor yi ca nag sax nanu xaar yokkute ci simon bi ndax foofee taxi yi dinañ ko daal di yokk le soleil di nu xamal ne li ko waral mooy wëram jugement Sud Quotidien ne président Sall recadré na syndicat yi xamal leen ne xel xalaatul yokkuteem payoor yi ndax carburant bi rek nga xamante ñu ngi ko bloqué nguur gi boobaak léegi ngir bañ mu yokk ci askan wi loolee ne blocage téeméer ñeent fukki milliards la cay ñàkk moom nguuru Sénégal te nag suñu bëggee saafara tawati ñëpp mu ne ana kañ la nuy saafara téeméer juróom fukki junniy ndaw yi nga xamante at mu ne ñu ngi soobu ci marché de l'emploi bi amuñu moyen yokk payoor yi ci weneen wàll mu ne sax lu jëm ci wàllu jot ci dëkkuwaay du droit du sañ-sañ source a ak yokkuteem salaire yi liggéeykat yi yeggee président neb ñaxtu ak maalank leen ca tegal ñu ne yéenekaay bi di réew mi moom ñëw ci feet ak première métier boppam ak nañ ko daa defee jamono yéenekaay bi ci xëtam mu njëkk wane ay syndicalistes ak seeni fulaar ñuy maaj mu ne feet gi ci boppam léegi ak coofantal ak néewal di banalisation yi ñu ne Khalifa Ababacar ku naan lu ëpp tuuru digge na moom madame le maire bu ndakaaru ne dina jokkoo personnellement ak président Macky Sall ngir libéré Khalifa Ababacar Sall sëñ Cheikh Béthio Thioune moom avocat aji kalaame Medinatul Salaam kaso bi la ñu bëggoon ci moom ak ndàmpaay ñetti milliards l'observateur ne ñoom ñooñee nag di avocat cheikh bi démonté nanu tas tasar lépp loo xamante ni mooy ay tuuma jëm ci moom seen client ca nag ñu ne càkkutee fag 3 milliards ne ndàmpaay moom ak taawi gu rëy la suuf aane keroog bu Mbour woote woon le 18 rek moo ci desoon ngir sapeur pompier yi ñëw ximili procureur ndax ay cheikh bi ñu ne démonté nañu tas tasar càkkutéefam jëm cig daan ngir cheikh Béthio Thioune yaxanal leen énergie seen doole la mooy di seen xaalis daan ngeen ko dégg ci télé bi yaxanal googee nag ak lu cay xirtal askan wi di promotion bi ñenn ñi gis ne Senelec lool du liggéeyam waru ko ka jiite woon Senelec Mouhamed Mactar Cissé ci Vox Populi ne su déggee wax ju ni mel daf koy miti lool choqué moom mi nekk léegi ministre énergie ak pétrole ne ci réew moo xamante ni dafa nekk ci sous-développé nekk ci tabaxu ak lu ñu mun a am ci source d'énergie ba a jiitu mooy cakkanal googee mu ngi ko yooyu kàddu Mouhamed Mokhtar Cissé cim xew bu liggéeykat yi Senelec doon amal doon ko ca sargaal ak njukkal moom sëñ Cissé ci Vox Populi ne ci gàttal ki gën ci directeur généraux yi ki gën ci ministre gën ci manager di njiit yi mooy ki jàng wéy di ne ki mu doon xale yi jëfandikoo jakartaa gi nag waroon nañoo dégg yooyu kàddu topp yooyu tànk lu may di bëgg a mel neneen ak a ñol la tribune xëy gëstu ci jakartaa googee sax ak